mu mel ni ki tey bés bi nga xamante ni bésub cant la comme ni ko sëriñ bi digalee ñu gis ngeen di def loolu ci biir kër gi euh, mu mel ni ki daal bés bi am na dimension boo xam ne international boo xam ni euh, tey euh, cant geeg jàngum alxuraan bi mu mel ni ki santaane borom bés bi la. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah ko ci ñoo leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam santam di leen wàcce ci seen wàccuwaay li nga xam ne sëñ bi comme ni nga ko waxee noonu rek loolu moom lu wér la. man mi wax ak yow nii sëñ bi toog sama xarale sëñ Mbacke Samb di nit ku baax nit ko am kóllëre suñ borom boole ñu mu lu yàgg lool depuis ca Taïf suñ borom dogal tey xame gi ba yegg si ba fii waaye comme ni ko waxee mbiram màggal gi bésu cant la sëñ Touba moo ko wootee na ñëw santale ko boromam wala yëpp xiiwal gu ko suñ borom defal la mu fas yéene bokk ko jaam yi loolu la ci jublu rek loolu la ci jublu bésu tey bi day bésu boo xam ne bésu fàttaliku la bésu jaamu yàlla la. mu bës boo xam ne ni sëñ Tuubaa ku ko fàttaliku fàttaliku nga rasulullah salaa salaam ku ko fàttaliku fàttali nga borom bi subhaanahu wa taala kon sëñ Tuubaa maanaam mooy mbir moo xam ne daal ci gàttal daal suñu borom daf ko àndoon ci jamono ngir mu yeesal diine mu jadi daloon waaw ndax jamono bu ne téeméeri at ne am na suñu borom ko muy yebal ndax euh, suñu maam mos na wax ci moom loo xam ne wax ju rëy balaa muy dem ca fële ca biti ca ca tukki mi maa ngi koy waxtaan sëy mos na faa yebal euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak maam su ngeen demee ci borom Ndiassane ngeen liggéeyal ko bañ demee dëkk yu bare bare bari foofu ci wetu Ndiassane ci ay lam-lam ak yooyu euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak maam Thierno ak ñoo ko liggéey biñ paree ci la ko maam wax nag Cheikh bu Mouhamed Kounta ne ko su ngeen demee ngeen seen sëriñ am na tukki bu koy ñëwal ci kanam incha allah rabbi tukki boobu dina ci dem ci jàmm ñëw ci ci jàmm te li mu wax ci yoon moo ciy am te bu fekkee tukki bi ñëwagut ak yeneen i mbir yoo xam ne kéemaan yoo xam ne xew na ci biir. moo lay wan ne sëñ Touba maanaam kéemaan la ko xam suñu borom moo ko wàccee suñu borom moo ko teral def ci moom ay ngëneel te ngëneel képp ku bëgg yàlla laa wax de wala nga xam ci yàlla dara sëñ Touba di ko bëgg. lii moo waral ñu bëgg ko ndax sëñ Touba ñëpp la liggéeyal ñëpp la liggéeyal comme suñ maam moo waxoon loolu ci moom te yàlla dogal ma man may ñëw tuubaa kon loolu laa ko mën a seeral.